yow ngeen tax. tàcc loolu lay demee. loo ko wax. waaw ok ok. lan la. si la gannaaw quoi. waaw. waaye man dóor waaye man loo ko wax laa wax. ah moom ko wax. am na ko booy sàcc. waaw pour la gisee. waaw. da ngay daw ñu dàq ji. loolu mooy réalité bi. waaw loolu mooy réalité bi. c'est-à-dire loolu la quoi. waaw waaw mooy boo dee sàcc dugg ci kër di sàcc gars yi bu la gisee li normal normal li yoon nang da ngay daw gars yi dàq ji affaire ngën la caan comme bu ñu neexee ñun boo jaaree yoon ñu jaar bee yoon ba le affaire noonu ngër ci dem ok kon man loolu la ma dem da ngay daw rek ñu dàq ji continue ba trois ma dem daw rek ñu dàq une li nga ni nii lay demee non non day eh, day saaga doxalin de déedéet non eh, boo leen yuuxoo waa ñu ñu ñëw ray ma fii léegi yow la ngeen di wax léegi kan la yuux kan la sa yuux xaw xaw ma dama bu kenn yuuxu kenn yuuxu du yuuxu sa gëmmiñ gu rëy gi yow bu fi yuuxu yow yaa bu yuuxu du yuuxu comptez ba trois madame un deux trois Sadio ay waay damaa juum de ay loo yuuxu loo yuuxu ay loo yuuxu kan du doomu xalam ji la doomu xalam kii day lay sa ndey de kañ lool maanaam dafa nga lekk mu mu wax Vandam. bu koy nural. Gilles Balo Gilles bu sotti laa kay. sëñ Ba Ba. lan tax loolu. loolu sa say nekkul. maa ngi jéggalu. eh fo ma jàll. foo jàll damay génn. eh sax faafa moo fi ñëw nee na fii la ñu fekk nee na kër génn kër. dafa am ma ko wax ne ko waxal. bu génn kër gi moo ko wax. yow eh noppi. kat la bu naaj bi tàngee ngay bàyyi yëpp. waa dugal ci biir. waa doo génn rek dugal ci biir dugal. wóo waaye déglu ma dañuy waxtaan. man moom maa waxtaanu ma ak yow. sa bopp waxtaanu ma ak yow. Eh, demal. Eh, demal rek. dugal awoo loo wax. wóo boo ma boo ma keppe. boo ma boo ma boo ma keppe. boobu daal boobu dafa leew xam naa leew dafa am naan bu bu kenn jël. papa moom xam na nga. waa koñ bi da ngaa rafet rek fu mu fi fu génne fii de waxee ños. njëriñ njaaye sala xarit ngoone. incha allah magana biran Diop Maria si may sa bige maar. foromaare nga ñaari waaye kenn du sa baaya <laughs> li lépp yaa ko liggéey ci biir kër yaayam dëgg la bu ñu naan ñànku hmm. bay baa ko liggéey maa ko def de ko liggéey ñànku foromaare golden boy def boole golden boy le golden boy eh. doomu yaayu wàllu balaa ko maria sil may sa biige <laughs> pas sa biige maan aju naar ma ca eh, aju naar ma ca ndóo jar xa dem ba la mbaay jar xa di la mbaay xam naa no faramaareen bi Golden Boy bi le Golden Boys pa Golden bi pa Golden a ngi Golden amul boy Golden Boy bu ñu naan booy eh, ah. bàyyi ko waral. waaw sa baay moo la ñaanal ba tax ñu naan golden boy. waaw mhm. waaw moo tax foromaare. yéen <laughs> ñaa ko foromaare. wax leen la gëldan booy bàngee wax leen kay e ñaa ko faramaare oho ma yaakaar lu ne lay wax mu ne ma ayoo di ma <laughs> damaa sonn moment il maar. oui yow wa Ndao Ndao da nga a de da ngaa woor da ngaa woor. way lay wol na de wol nag ma dem topp bi la. dama bëgg ñëpp xam ne woor nga tey. loolu di publicité yow boo ko publicité sama du ma am xool. day tax loolu yow yow yow yow yow yow ginnaaw ba yow yaa dem bay wool le ñëpp dañoo war a wool. Guédé yow laay waxal bi nga may dóor may crise hmm. boogu damaa feebaroon léegi damaa faj ba wér loolu sóoraale loogu nag. ah fàttewoo pe coup gauche bi ah fàttewoo loolu léegi droite bee gën a danger force de frappe bi defar naa ko te bu ma la dóoree bii yoon da ngay génn àdduna. bii ma fajoo ba wér. Ah. baare laa jëkk a jàng baare maytu. yow pa kii Ka. waxal maa ngi lay dégg. yéen seen waa xam ah, xamuloo leen ku leen siis wala ku leen di kii daal wala yéen lébu noonu ngeen mel. waaw ñun lébu noonu lañ mel boo ñu siis dañoo gën a toog. lébu yi mel <laughs> noonu moom moom mel noonu. ab baadoola la. ñoo ñàkk moo fi hmm. considéré te ñun ñàkk considéré ñu ko. waaw toog rek. nit da ngay xam bët nit da ngay xam bët jin lay xoolee. waaw ñu ndogoo tey suba ñu ndogoo nga toog rek. waaw jin lay xool da nga koy xam. jëmbal sa fi yow kool. ii yow yow yow mii yow mën a fen lekk ay yow di ma lii mooy wol nga lii raw xeeten bu ndox jotee solo la fala la bu ndox jotee buñ waxee alaam la ko sumtu rek man ma koy naan doom daa jotagum yan daa da ngaa yabaate de yow gën a yabaate yow mu ngi njëngul tey yow nga nga ngay wol yoon si vidéo soobu sedd gi saf saf ak suuk kan moo jaay soow bi eh Momadou Sow moo ko jaayee. am na suukar. saf na kay. na suukar. kaftu na dama ne laa ko ñam. loolu du du laa wax dëgg yow da ngaa ndaaya. waaw waaw waaw su ñu yore ku déglu ne ndaaya. yow laay wax xam. waaye sa dof dof li nga nekkee li nga nekkee. waaw la koy waxal dof. caabi may wax sa jabar ji di jaay reewaan ñu ah anu bo dama ne la xolal hmm. boy jaay rew da ngay baye ba yor soyu sa jëkkër yorul hmm. yorul len lu mat ngeen may jaay reew ah. looloo bax nak ken fa joxu la ah why? ah ah ma la taw. li mbalu <laughs> ma